sëriñ bu tedd bi ñu ngi lay ziyaare bu baax ci turu ci ndigalul sëriñ Moustapha mii di kilifi kilifa mbooloo mi tey fi teew ci yow waaye ci ndigalul sëriñ Ahmadou Maxtaar ak sëriñ Cheikh Madina ak njabootu Dara Xuddoos gépp sëriñ Abdourahman ci lañu teew fii ci yow ñoom ñépp nag ñu maase am ci mbégte lool ak yaakaar lool waaye ñun ñi ndaw yi it ñu sawar ci lool xanaa nag yàlla nattoonu ñu jox nu ndigal ci mënuñu koo ñàkk jëfe waaye yow Mbàkke da noo jàngal lu bari daataa ñu ñëw fii ci dundinu murit ak mu war a taxawee kilifaam ba tax na kàddu yi dana dis ci ñun waaye ñëw jégglu sunu boroom ca di la di ñaan yàlla it nag sañu ñëw la ñaanal dara ndax xamuñu su jéemuñu xam sax sax bëgg ëpp na nu waaye yàlla xam na ko sëriñ Touba mi ngi fi nekk li xam na ko tàllal nañ nag sëriñ Touba bu wér def te ci moom bi nga bëgg mu defal la ko ci kàttanu suñu borom ci dara ju yonent bi sallallahu alayhi wa sëriñ bi mbooloo mii fi ñëw tey ñëw nañ fii mbooloom jullit la ñi ci ëpp di ay taalibe waaye ñëw nañ fi ci ak bokkoo ci lislaam waaye ñëw nañ fi ci ànd ci tool Sëriñ Tuubaa di ci liggéey ci ci ndigal ñu wax ne bu ñu ñëwee ci sa kanam amuñu lenn lu ñuy wax lu weesu taatan waaye nag sañ dañ laa wax yéene ji ñu àndal ak fa ñu ko tibbee ak ñun ci bokkal yéene ñépp ba egsi ci yow kon sunu kàddu du mën a gudd waaye na nga xam ne ñii fi jekki ñépp tey sa njaboot lañu sa kër lañu jóge ci seen pénc lañu ñu sox ko nanga xam ñi fi teew tey say taalibe képp lañu ñoo xam ne fas ñu yéene nekk ci lenn loo leen di tere ca loo leen digal fas nañ ko yéene def ñu lay ñaanal nga ñaanal nu nag ñu mën a jëfe ndigal ci yàgg koo jëfe loolu rek mooy suñuy kàddu ñu ngi lay ñaanal yàlla di ñaan nga yàgg fi lool jërëjëf Mbacke إن الذين إلى خسارة قد وصلوا زيارتي فارقوا داري في أوزان إن الذين إلى خسارة قد وصلوا